Assalamu alaykum, wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences dañoo bëggoon del si rek ci wax ji nga xam ne Guy Marius wax na ko ci CEDEAO muy kàddu yoo xam kuy nit kuy nit ku gore da nga xam li Guy Marius Sagna wax dëgg la moo tax Sénégal yépp ñu ngi koy supporté te kip kuy pan africain li Guy Marius Sagna wax mom ga gem te li Guy wax moy li am naka jek état yu mu tudd ay xoosuma ñappal lañ ño xam dama ne France kep lañ gem dama ne xamuñu fu ñu tek seen tank bu dul France amuñu menen pexé ay oncle Tom lañ état yooyu gi Marius Sagna mu wax man dama ci bekk bi discours bi daanoo wóor na yàlla sama téléphone di son yim sore bari na ay pan african di ma woo kenn ku ne naan mosuñoo gis ku mel nii man leen kii nag jomaay ko yebal jomaay moo ko yebal Ousmane Sonko moo ko yebal ñun Sénégalais yi dañoo xam ne pan africanisme parce que ci fii la juddoo ci suñu réew mii le pan africanisme dafay am lu yàgg ci réew mi lu yàgg ci réew mi dama ne Souleymane Baal moom la woon Mamadou Lamine Dramé moom la woon Serigne Touba Mbacké moom la woon Lat Joor gën a Lattir moom la woon Xaali Amar Fall moom la woon Damel di moom la woon dama ne le jéeri joor ndeela moom la woon ma daanu kàddu mbal yàmma Babacar Ba as Joxu euh, euh, Ba moom la woon ñun da dañoo mas di bañ Sénégal moo tax tubaab bi

bañ na ko tubaab bi fu mu àgg rek fu mu àgg Afrique ñoo ko fa àggee moo tax Guy Marius Sagna lii mu def Cheikh Anta Diop la siggil lii Guy Marius Sagna def président de moom la siggil ba pare jubbanti ko lii def président Ousmane Sonko na ci ndax kenn gisul mu génn yedd ko dama ne africain yépp a bëgg dama ne am na africain moo woo di regretter li ñu doon wax ci yi man la ay Sénégal dañuy dal aw ñun bala ñoo rendi dara dañuy nàmm paaka mooy xeetu masla yi ngi ci Sénégal ak kóllëre lu xëy dagg ko war nga koo leer ba mu leer naññ kenn ku nekk dem sa yoon bu kenn ku ne boo tëddee mu leer ci sa bopp kon bismillah ñu déglu gii Marius Sagna ak réaction bi nga xam ne ndaw si jaara def na ko la représente bi nga xam mu représenté le président euh,

Mor Ndaw si jóg wax waaye bi pinit nan les les les les africains diñ tudd ci ay pauvreté ndaw su waxut dana tek taxaw ndaw su ko ñaaw làmmiñ la waaye kenn boo ko déglu Guy Marius Sagna ba par seetaan action bi dor ci indi suñuy xalat Traoré du deuxième. Bonjour euh, merci euh, au CNUD euh, qui nous a fait euh, un bon exposé euh, avec des éléments très importants.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 Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue.

ak ak franc CFA BCEAO yooyu yëpp ay combine la yoo xam ne tubaab yee ko gàll ci suñ kaw créer ay institution diñ ci bëgg a rey Guy Marius Sagna wax na lu leer te nañ déglu suñ mbokk malien bii devant l'état malien ci la ko taxaw wax ay borom yi xam wax ki yi ñëpp toog déglu ko kon ko bokku déglu ngeen xam ne Guy Marius Sagna ci dëgg la ne moom dem la ba ne duñ cotiser ñoom duñ cotiser te ci lañ nekkoon seeni cotisation tubaab yoo ko daan teg te seeni bureau bureau boo bureau ay généraux de l'armée ñoo fa nekk seen bureau yëpp ay généraux fa nekk ay anciens militaire français ñoo ñoo ni ci biir bureau CEDEAO nit ñi ñuul ñi ay photo dong lañ fa teg kon li Guy Marius Sagna wax dëgg la te président Diomaye ñoo ngi lay félicité waaw nii nga ko doxalee noonu la

C'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDAW, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDAW pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission, comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça la tête baissée. Président de la commission de la CEDO, un ministre, un sous-ministre de notre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous, nous sommes un peuple de guerriers. Ah! Nous voulons qu'on règle les problèmes. Eh! Et donc, pendant dix ans, le tourisme s'est étendu. Quant à l'autorité de l'État au nord du Mali, je répète ces choses-là pour que les Africains et les Maliens comprennent. Mais qui a empêché l'État malien d'aller à Kidal Mais c'est l'État français. Notre président de transition avait demandé un appui aérien et un renseignement. Il n'était jamais question de militaires français. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils nous ont empêchés d'aller à Kidal. Après, ils ont amené 5000 militaires de certains pays africains avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Pendant 10 ans, on exploite de l'or, on amène des milliers d'autres de citoyens d'autres pays africains. À Kidal, à Gao, de l'or. Où va l'or Personne ne sait. Mais il y a une petite partie qui vient alimenter l'oligarchie à Bamako, composée de politiciens, de juges, de militaires, tous ceux qui ont de l'influence pour nous maintenir dans l'esclavage. Jusqu'au jour où Dieu a délivré le peuple malien, ils ont été chassés. Est-ce que vous savez qu'il y avait des gens qui ont 96 millions de francs CFA par jour, par mois disons, dans l'exploitation de l'or, ceux qui se sont mis à leur service. Ça, c'est la petite quantité qu'on donne à ces valets-là. Hein? Mais le reste va, on ne sait où. C'est pourquoi il y a des pays où on ne produit même pas de l'or, mais qui ont des milliers de tonnes d'or dans leur trésor. Mais nous, on lit tout ça. Aucune route, aucun puits pendant dix ans au nord. Toutes les populations sont parties. Tous ceux qui peuvent faire les affaires économiques, les hommes d'affaires, assassinats ciblés, pour créer un vide. Et on dénigre les militaires moi, j'ai écouté des généraux se moquer de nos militaires. Ah, les, militaires. Et puis, il y a des hommes politiques aussi qui les remboîtent le pas. Il y a des hommes politiques ici qui disent Ah, oui, au Mali, il n'y a pas de militaires. Ils ne sont bons que pour les défiler les coups d'État. Dès que tu tires, ils fuient. Et j'entends des généraux disent là Non, non, non. Même les véhicules qu'on leur donne. Euh, dama sigil na Afrik, gi Marius sigil na kull ku di sénégalais Jubentina. Marius Sagna jubbanti na nga xamne mo le président bi defone te ñi xamuñu la wax te nii jomay def ni président jomay def dama né tous les sénégalais dans l'ensemble am nañ ndam am nañ ndam président jomay ku ni li lay def te fek fi assemblée bo xamné mo sosone ya 50 ans mo sosone afri cdao bi munta xataraayu ni dama cey génne nonu te réew mi assemblée motax tas assemblée bi da na ko farata la waye li gën ma diko ñaan askaru Sénégal assemblée bi dik na don 100% pan africain on n'a pas besoin de parti politique mais nous avons besoin des panafricanistes yoo xam ne njariñal Sénégal njariñal Afrique seen njariñal bop kep mo leen di ñor mo leen di ñor li nga xam ne marissage wax nako ko ak ñi ñu ko traiter surtout madame jara je ne sais pas de de bi nek abi euh, Côte d'Ivoire doomi Alassane Ouattara juju ndaw sosu ndaw su xamadi la yarut amutu teggin xamul bopam mom du doulinger femme femme de maison la pour pour nettoyer nettoyer tout bi bu nit bu nous a insulté les africains pauvres les pauvres africains Nous nous nous nous avons tout ce qu'il nous faut nous lépp nous nous nous nous,

ñoom alal yëpp jël nañ ko waaw lii le ministre malien wax ci or bi gis ngeen ko or bépp dañ daan yóbbu ab teen teen bënn teen sax bënn ab teen tubaab yi nanguwuñ ko fa di ñi am luñ naan ba nord Mali dañoo daw parce que amuñ ndox mun naan tubaab bi gëstu jël or bi di yóbbu pendant combien d'années ñii dañoo toqi am nañ droit wax ko te ay président fa nekkoon xoola or saabu dollar bi bañ ko dalee jël kañ la kañ lañ ko war a jël tey

comme ni ñuy rêvé aljana ñoom doo ñuy rêvé def ne la terre mère di kat ni dellu seen dëkk muy les africain de la jaspora gii Marius Sagna dama ne leer na lépp leer na lépp la femme la nañ ko yar te dégg naa le ministre togolais la le ministre le gars la représentation togolais ki doon nañ ko daanak ak nañ ko alamaan nañ ko dàq ak nañ ko dàq ku ngeen di dàq yéen ku tudd président ngeen dàq ko parce que institut bi ngeen yor lan la ah tubaab yee ko moom CEDEAO la BCEAO dama ne tubaab yee ko moom UMOA bi nga le marché la bi ngeen di coow 400 et quelques millions doomu aadama no ci marché bi marché bi ana ku leen di jaay français leen di jaay suñ or bépp li ñu yóbbu fii tey boo nee Dubaï da nga naan or ba fa nekk te or ba nekk Dubaï lépp diggante Mali ak Sénégal lañ ko sàcc tey da nga di ah Dubaï bari or Dubaï or ba ca Dubaï or ba ca Dubaï te nun africain yi ñoo koy wax parce que suñ bopp yi ndoxo ci newul oto yi daw oto yi daw di romb oto yi daw di romb weñ gi lépp Afrique lay jóge bon partie ci gaz bi ñu koy lakkee ka toggee Afrique lay jóge peinture bi Afrique lay jóge ba ci engine bi ak loo làmb rek

ay diplôme français lañ yor français yi doon encourager l'état du Sénégal pour recruter ci anglophone nangu nanguwuñ ko kenn jangal so lay pop, ci sa bop mom lañ bëgg mu dik karawaatu ak làkk tubaab siire say dàll xeeb say bok loolu rek fi ne waaye cette fois-ci nous allons changer le Sénégal faire un Sénégal meilleur un Sénégal pour tous les Sénégalais et nous allons essayer de construire l'Afrique comme les Américains y les États-Unis d'Afrique. Nous avons le mot révolutionnaire, le panafricanisme, le sang africain. Nous dem, te dem par force. Je delsi ci femme bi vice-présidente bi la honorable il a le droit de dire ce qu'il pense mi wuro ko ne waxal ki bul wax li waxal li waaw watara Ouattara kan Alassane Ouattara moy kan un zéro oncle Tom un esclave des Français pourquoi du ko tudd pourquoi tudd Togo pourquoi tudd le Bénin di donante mais li yéen a pourquoi du ko tudd parce que président la kenn du ko tudd te wa punit am nañ droit né vous êtes des pauvres vous êtes des wax yorul leen dara aw fen la fen wu mag a wax la def waroon nañ ko du dëgg or bi nekk Mali yéena ko daan sàcc noo ko moom uranium mi daal jugee Niger ñoo ko moom ah ak bi nekk Mauritanie ñoo ko moom ak Sénégal te dañuy dikki di ko jël mais nous sommes pas pauvres da ngeen ñuy appauvrir ànd ko ay président africain ah ay oncle Tom ñi ñu jaxase Afrique Guy Marius Sagna li mu wax lépp dëgg la waaw prés koo koy tëkku nag vice président bu koy tëkku Sénégal buy génn CEDEAO muy tas dama de jomaay mooy xer bi xer bi téye xeru jànki bi jomaay bu jamaay rocc ci ko rek CEDEAO toj moo tax ivoirien boobu rectifier sa langage ñun ay africain lañ dun ay jaam yow boo nekkee jaam doonal jàmm waaye nun ay sénégalais lañ yoo xam ne li ñuy def xam nañ ko bi jomaay génn ñëpp a jaaxle woon waaye bi ñun fu ne la ñuy génn ñun ay sénégalais ñun comme ay dëmm fu ne la ñuy fu génn fu ne waaw foo laal ñu génn ca pax ma ca des dama ne euh, billahi daanu ànd ñun Afrique daanu ànd daanu booloo dama ne Cheikh Anta dina bëgg parce que pan africain la Serigne Touba Mbacké dana bëgg pan africain la Lat Dior Ngoné Latyr Diop dana bëgg pan africain la Damel Déthié Foundiougu dana bëgg parce que pan africain la Xaali Mar Fall day bëgg parce que pan africain Thierno Souleymane Baal day bëgg parce que pan africain Baba Diakhou Ba parce que pan africain la Mamadou Lamine day jóg ma nga ca baar sax waaye xol bi sedd na pan africain la dama ne tamaru ngooñ pan africain la Amari Ngoone Sobel Fall Damel Jëcc fu njóogu ñu ñëpp pan africain de pan africanisme juddu na lu yàgg biir Afrique te tur bi génn tur bi ana koo ko génn ñoom Cheikh Anta Diop daa mel na nga amum xar ba mu am doom ba doom ji nar a tëw ba nar jur nga wutal ko tur fekk na nuy dox pan africanism ci réew mii tubaab bu ne sonal nañu waaye sonal nañ ko bi tubaab bi ba jaxale ci nun dañu léegi vous êtes des français waaw di nax ñuy dem ci àll bi di ko yóbbu fu français bi àgg rek ab sénégalais ko fa yobbu wax naa leen kër ci émission bu leen le camerounais ak gabonais yi je les respecte beaucoup mais xamuñu luy pan africain xamuñu ko ñun bu jëk bu mosaan di ñëw gabon bu ñaari gabon yi di xulo ñaari gabon di xulo da ngay dégg morom yi ne ko mais pour qui tu te prends monsieur pour qui tu te prends tu n'es pas Dieu tu n'es pas blanc tu n'es pas français mais tu n'es pas sénégalais aussi mais qui pour qui tu te prends bu dëkk bu ñu xuloo loolu daan wax doo yàlla hein? yow doo yonent bi ah yow yow doo tubaab yow sab dër wéexul te yow doo sénégalais nga bëgg a bonde sama kaw bu njëkk noonu leen daan xuloo ñoom bu njëkk yàggul de yàggul dañ daan dem Abidjan dan lay jaay benn pattu dàll peeru daa gis peer bi ñu jaay la patt bi wañu ko jaay beneen bi dañ lay jaay patt ba nga gàddu bay dem daal ne daal ne mais l'autre la ñu ah tu as acheté une pièce tu as acheté l'autre ah ok mu ne combien l'autre nga jaay ko benn patt bi loolu def nañ ko ba tey ah lu ne def nañ ko

président Diomaye temp ki tenk temp temp ji muy def du koy sàppoone la yor boo xoolee kanam bi sax sàppoone bu ñuul koy def bu ñuul sàppoone yi dañ naan ku gaaw a mer ak ku xataraayu bopp bi normalul da ngay ànd ku dal ak xam waxtaan ak say bokk jóg mu bënn président Diomaye boo ko ne jàkk da ñuul la moo sàppoone bokk jikko sàppoone yi bi leen yi dóoree ay bomb te bu ñu di xaat xaat di dóori bomb defuñu loolu de dañ na tekk waaye tey ci côté économie bi lañ aw tey mbedd moo tourné Amérique da gis ab Toyota wala gis ab Mazda wala gis ab Honda dama ne mënoo jaar fenn fenn te mënoo gis ab Datsun boo xam ne oto Nissan da nga ko gis dama ne mënul tuuti benn koñ te oto sàppoon yi ranguñu xoola jooju alal xool leen jooju alal loolu mooy xam-xam waaye américain yi dóor nañ ma bomb baa ma dóor leen bomb ñu noonu bomb bi ñu dóor américain yi te américain yëg nañ ko ay marque automobile rafet lañ teg di leen ko jaay ci prix boo teg li ci gën a yéeme ah américain koy seen bopp sapone ko moom dañoo ba ci biir dëkk bi ñu monte seen fabrique di defar oto yi américain yi ñu defar ko Corée di leen ko indil noonu la borom xel di liggéeyee foofu la président Diomaye toll kon kan boo ko góorgóorlu te CEDEAO bi bu soobee yàlla kan déglu président Diomaye te activistes yi doon di Cameroun bu leen déglu noonu nous avons notre façon de faire am na Camerounais yow sax ne ils ont beaucoup regretté leen doon wax ci président Diomaye bi ñu dégloo gi Marius Sagna xam loolu am solo ngi noonu maa ngi ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di gërëm nag maam Thierno bu Oreilles du Monde parce que yëpp noppi lool boobu nag noppi lool mi ngi ci ñi ngi ci te ñu invité ñëpp nag te ni partagé ñu ñëpp bokk di ko partagé waaw lii ñu wax ñu ñëpp la jariñ kenn xamul lépp nag kenn xamul lépp waaye bu ngeen indi seen xam-xam ñu indi soon xam-xam day mel na ñuy taxan da am lob bu mag te ko bëgg a taal da nga taal may ziyaari ñëpp encore une fois euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la de conscience ma bëggoon nga déglu nag waaw kon bokk déglu euh, le ministre des affaires étrangères du Mali euh, Abdoulaye Diop aw sant dëkkul fenn Sénégal yëpp Diop lañ sant boo ne bokkam ci réew mi lay jógee euh, kan ko déglu ku am faratal te xam li muy wax nañ ko bokk déglu kon bismillah L'Afrique francophone n'a pas grandi, elle est restée adolescente. Elle n'a jamais été décolonisée. Pourquoi on a six coups d'État dans des pays francophones et pas dans des pays anglophones ça, ce sont des questions de fond qu'on doit répondre. C'est pourquoi nos pays en sont. C'est une honte pour nous que 60 ans après les indépendances, on parle même de souveraineté. Parce qu'on ne l'a pas. Ni monétaire, ni économique, ni politique. On nous a mis dans la tête qu'on est pauvre et nous-mêmes, on est convaincus qu'on est pauvre. Et ceux qui nous disent qu'on est pauvre, euh, ils sont chez nous, même si on les chasse, ils ne vont pas. Est-ce que c'est le bon moment, les amis est-ce qu'au XXIe siècle, on peut dire que l'Afrique s'est réellement réveillée Écoutons ce discours moi, je pense que si on parle aussi d'intégration, je crois que Aurélien euh, en a parlé tout à l'heure, nos pays ont fait près de dix ans en train de lutter contre l'insécurité, ont tué nos gens par centaines, par milliers. Euh, on n'a pas senti la région. C'est vrai qu'il y avait les Nations Unies, mais l'Afrique a délégué. Ça, c'est notre responsabilité. Hein. Je ne blâme pas les Nations Unies qui sont venues, où il y avait beaucoup de nos frères, mais l'Afrique a délégué sa responsabilité aux Nations Unies il y a des limites institutionnelles pour nous aider. Et on n'est pas venu. Comment vous pensez que des populations maliennes, dix ans, ont été tuées, massacrées par dizaines, par centaines, par milliers On ne voit personne. Et subitement, il y a un chef d'État qui est entre les mains des gens, on trouve le moyens. La vie humaine, c'est quoi Ça aussi, on peut se poser ce type de questions, quelle que soit l'importance d'un chef d'État. Est-ce que ces populations qui ont été tuées méritaient d'être tuées ou leur vie humaine ne vaut rien et ça, on voit ça aujourd'hui encore. La vie humaine en Ukraine n'est pas la vie humaine au Sahel. Là encore, je veux mettre en cause nos amis de l'Union européenne, tes anciens amis, où quand on se battait, on a négocié, vous et moi, avec d'autres de vos collègues pendant des années au Sahel. Il y avait la mission européenne de formation, il y avait ECAP, il y avait des militaires européens. On dit, aidez-nous, ils étaient en train de former nos gens, ils investissent des centaines de millions d'euros. Voilà ce que nous voulons, c'est trouver une équipe, former et équiper les gens. Mais les militaires maliens qui étaient engagés dans les formations européennes devaient amener leurs propres munitions. Et on nous a toujours dit que l'Union européenne ne donne pas d'armes létales. Et ce qu'on donne en Ukraine, ce n'est pas des armes létales, euh, des armes létales Est-ce que la vie d'un Ukrainien vaut mieux que la vie d'un Sahélien Deux poids, deux mesures. Subitement, il y a la guerre en Ukraine, subitement, les armes létales sont autorisées et les Sahéliens qui sont morts par milliers, qui assurent la conscience de ne pas avoir fait ce qui est nécessaire, et de venir aujourd'hui accuser le Mali de dire oui, mais vous travaillez avec la Russie, vous ne travaillez pas avec moi, etc., vous me tournez le dos. Quelqu'un a posé la question, ancien partenaire, nouveau partenaire. Ça, je vais vous répondre, madame. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça, oui. Pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale. Parce que la Russie n'a colonisé aucun pays. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. On parle d'anciennes puissances coloniales qui ont des habitudes qui ne sont pas parties. Maintenant, nous, nous cherchons la sécurité pour notre pays on va là où on trouve, puisque les Européens vous dites que vous ne donnez pas d'armes d'État. Le malice qu'on a avec la Russie, ce n'est pas des prêts, ce n'est pas des dons, on achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains, on dit qu'on achète, ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons Et subitement, en Ukraine, vous, vous êtes rendu compte qu'il leur faut des armes pour se battre. Donc je pense que quand on fait ce genre de comparaison aussi, il faut qu'on se dise, non, nous, on n'est pas dans ça. Avec chaque partenaire, on cherche ceux qui peuvent résoudre pour le moment donné. Si c'est la Russie qui peut m'aider sur le plan militaire, je ferai. Si demain, c'est les Américains qui font mon affaire sur le plan économique, je ferai. Si c'est demain les Turcs qui peuvent... Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent que nous sommes dans ce schéma. Parce que quand le Mali a voulu choisir, on nous a dit que non, vous ne pouvez pas choisir. On dit aux gens, non, tu viens dans ma maison, mais tu me dis que moi, je vais dormir dans telle chambre, tu chasses ta femme et ton ami, ton voisin ne viendra pas chez toi. On était dans ce type de situation. Quelqu'un dit oui, la souveraineté, on en a parlé pendant des années. n'est pas un concept nouveau, mais n'est pas un concept nouveau parce que l'Afrique francophone n'a pas grandi, elle est restée adolescente. Elle n'a jamais été décolonisée. Pourquoi on a six coups d'État dans des pays francophones et pas dans des pays anglophones Ça, ce sont des questions de fond qu'on doit répondre. C'est pourquoi nos pays en sont. C'est une honte pour nous que 60 ans après les indépendances, on parle même de souveraineté. Parce qu'on ne l'a pas. Ni monétaire, ni économique, ni politique. Donc je crois que ça, il faut vraiment Waouh, comme dit mon excellence euh, Abdoulaye Diop du Mali li wax la France ban dalee ànd ak moom ak léegi ñaata at wala ñaata siècle te tey amuñu lu añee France plus de cent ans or bu nekk may da koy jël di yóbbu da koy jël di dëkkub jàmm nga dag ko ñett ñetti partie maliens yi xamuñu woon sax fu mali yam nga të muuri boo koy te nga empoisonné ko soixante ans ñu ànd ko ak yow la France a assassiné vingt cinq président coup d'état yi fa organiser kenn xamul lu mu toll nit ñi nag dañoo yeewu waaw dañoo yeewu jóg diju waaw France bu bëggee jabar na seeti européens yi wala mu dem feneen nun du nangu kon sàkku noonu lànk waaw président Diomaye nag ni ñu koy defee xam na ko au ralenti la koy def ba mu la mu bëgg waaye li wérti wóor mooy tout un africain

ba ba ba toppandoo amee la tëlee am dama ne toppandoo ba amee la tëlee am te amatu leen looy jàngal sa morom lu dul xool da bi jëfe nga def noonu xam-xam bu yaatoo am ci àdduna bi ab do fanaanu fi président Diomaye bu fekkente ne dañ ko mett en otage yéen askan wi wéen ngi préparé génn Burkina Faso nu la def Mali noonu la def Niger noonu la def waaw bu fekkee ne jomaay France dafa téye ci put gi réew mi askan wi ko moom nun kenn jóg jëlee fi armée française bi mën nañ ko te armée française bu dem na yóbbaale institut Pasteur soxla wuñ ko ñu ñàkk wuñu ñàkk wuñu kon maa ngi ziare ñëpp di ñaaral ñëpp jàmm Euh, yàlla rek man yàlla xam yàlla nañ buur yàlla suturaal te réew mi nga xam ne amuñu lu moom oh, yàlla aaral na ko tamit du kattan koo xam ne daañu mën a défendre suñu may ziare ñëpp di ñaanal président Ousmane Sonko di ko ñaanal waaw suma ñaan du jóg mukk ci moom président Diomaye mi yor réew mi nan ñëpp nañ bokk ñaanal ko lu baax rek lañ bëgg waaye duñ jabari kenn dama ne dama ne duñ jabari kenn. ay ponkal lañ dooni góor yorum xel yor alal ju bari nag te rib kat noo ko moom la souveraineté comme ni ko Ousmane di waxee bu soobee yàlla lu ñun suur daanu ko am te daanu ko am incha allah peace and love peace and love man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé conscience jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf Guy Marius Sagna jërëjëf jërëjëf jërëjëf